asalaamaaleykum mbokk yi juróom-ñeenti waxtu jot ca permanence APR maire li ko wër jot itam cinquième fii ci studio Allé Momar Lo ñu dikk ak yéen ci xibaaru suba gi ci kalamay ko ci atal bu ngeen taaxi loo tuuti a fës ak Farba ba tax ñu dàqu ko ci parti bi waaye la jaroon a lijjante mooy la a saaga yi ndax amul benn xuloo buy dooree ci ay saagay ndey loolee di gis-gisu euh, commissaire u parti APR fii ci Kaolack waaye itam dàq boobee ñu ko dàq terew ko doon député ba tey ji taxul itam parti APR ndax tey jii la gën a taxaw daa ngeen ci dégg Cheikh ci jamono ji nga xam ne rek way juru ndongo yee jàngee ca CM franco arabe bu lycée Valdiodio Ndiaye ña nga yenu seeni loxo di yuxu wi walo gannaaw ba mbaar ba ñu fa defaloon seen bopp le bant yeeg sàkkit yi a fàtte wala bokk ñu seetaan leen lu ñu xam mooy bëggatuñu ay diggee lycée bu méngoog jamono la ñuy xaar daa ngeen ci dégg Cheikh Tidiane Diagne ñay wër di wax ne Mariama Sarr day jaawatle bi la ngam ak bu njiitu réew mi Macky Sall xolu ki ñaan képp moom moo leen euh, dal waaye waaye moom Mariama Sarr mën naa bàkku ndax indi na Kaolack ay bi la ay projet yu am njëriñ te it nag loolee kii di jegaan wan li moom moo ko xamle te ba ñuy wër comité APR yi ci Kaolack ngir ñi daa ngeen ko dégg ci biir xabaar yi te bitim réew soxna Ngoone Njaay kan moo ñu fay demal tàggat yaram Serigne Boussa Kane li yëgle kaay yi xëyee tey ji mbiru El Hadji Seydina Omar Cissé lay doon bu li lépp yembe mbokk yi xabaar yi daal di buur ñu ñaanalante wala ta loolu ñu dikk ak yéen ci yaatal bi lay doon le journal Ndeye Khady Sadio dal leen ak jàmm mbokk yi yéen ñi tàmm la référence internationale ngir ay xabaar yu leer te wóor kaddu gi di bàyyi ko fii ci meuble Cheikh Imam Assane Cissé studio Aly Momar Lo ci dégg-dégg bi Codou Seck madame Keneme moo ci janook man mbiru politique la ñuy doxee bi la jotu ay xabaar APR rëb lool jamono ji bëri lool ay cow gannaaw dàquk Moustapha Cissé Lo ak Moustapha Diakhaté mu mel ni kon APR day bëgg a tas wala bokk waa Benno Bokk Yaakaar ñooy bëgg féewaloo ana lan moo xew ci parti bi Cheikh Ababacar Dieng. Cissé Lo gannaaw buñ ne dafa saaga Yakham Mbaye ak Farba Ngom ci ay audio li jaaxal ñu bëri nekk mooy amul benn xuloo buy tàmbalee ci saagaaw ndey lan lañ ko defa mu di leen saaga ab laaj la bu vie ay dara di samp moom commissaire de parti bu APR ci Kaolack kilifa réew lu tool nii vice président assemblée nationale kenn du jékki-jékki rek dof honnêtement nit ki da ngay jékki-jékki ñu tooñ la nga am réaction tooñ bi sénégalais yëpp seetuñ mais mosuma gis ci s kaw suuf nit kuy toog rek xool benn mindeef rek di saaga ndeem li waral saaga yi looloo jaral seet dàq nag ne génn na parti APR démissionné bu mu defal boppam ci bureau bu assamble nationale yu yëpp nag daay mandargaal rek ne ci ab organisation la bokk boo xam ne dafa laaj lu ñu wax discipline maanaam ku bokk ci mbooloo da ngaa war a yaru lii la vee ay dara xamle. APR commission discipline lañ teg commission discipline bi ñoom liñ dégg moo tax ñoom ñu réunir ne kii sama famille ak famille bu mu muntu doon nag muy sama boos ak boos keneen a ci yem koo ci déggoon sa doom wala sa sët di génn wax ju ñaaw yi ci làmbañam di nga ko ooyaat ne ñu waxtaan li ma dégg diw di koy wax waru koo waxaat sanction bi ak punition bi xëy na foofu la juree peut-être que su toogee boo réfléchiraat moom mun na jégalu bokkaat ci fay yu ñu ànd def. dàq nañu Moustapha Diakhaté ca jamono yële dàq Moustapha Cissé Lo ci jile jamono APR dañoo bëgg parti bi tas wala boog ab diir la bu ñuy nas ngir bu Macky Sall wàccee APR bis ñëwaat yor bopp réew mi wala parti njiit réew mi ci boppam sax nag moo jaar ci yoonu tas ndax benn intérêt amatu ci vie ay dara tontu ne déedéet. waa ji sax APR tey la gën a taxaw Benno Bokk Yaakaar tey la gën a taxaw mais ndax moo ci amul mais nawetaan da gis arbitre génne carte rouge sax jox la sa dirigeant dem bind lettre d'excuse envoyé ko haute cap carte rouge ñu la joxoon ñu baal la loolu gis nañ ko fi ah. madame moom nee na mu ngi ci tuus bi suñ jubalee que ñun noonu lañ structuré suñ parti kenn ku nekk libre nga doo décider nga wax ko mais soo jégee dayoo nag a déborder fàttali rek ne su fekkoon ne Moustapha dafa démissionné boppam ci biir APR dootul mën a nekk député comme ni ko loi bi santaane waaye comme parti bi moo ko dàq day wéy di nekk député ba keroog muy tekki ndombol tànkam ci coobare boppam jox la cër Cheikh Babacar Dieng ngir yeneen ni leeral waxtaanu laaj ak tontu amal nañu ko ci boobu lay dogal muy dàq ko Moustapha Cissé Lo suñu ndaw di Cheikh Tidiane Diagne seq ko ko honorable député Awa Gueye bokkit ci commission de discipline ba ñu teewlu seen ak jokkoo membre la ci biir comité de discipline bi nga xam ne parti bi moom la ñu teg xam nga euh, statut parti alliance pour la république ci article vingt cinq ak article vingt six dafa teg ay charte yoo xam ne dañu ne ku dëppoowul ak charte yooyu ci parti bi comité bi bu ko président parti bi saisiré am na droit jël ay sanction jëmale ci nit kooku dañu gis ne suñu camarade de parti jamono yi yëkkati na ay kaddu yoo xam ne kenn rafetluwu ko du militant yu nekk responsable yi du sénégalais yi loolu moo tax nag bi nga xamee ne président parti bi saisir na commission de discipline bi ñu waxtaan suñu biir jël dogal dàq ko ci biir parti bi. mais am na ñu gis ne njiitu réew mi rek moo ko mën a dàq yéen mënoo leen ko dàq ci parti bi. waaw loolu ñuy wax dañu xamul rek parce que président parti bi dafay jël dogal bi yónnee ko commission de discipline bi donc commission de discipline bi bu ñu waxtaanee ba pare ba jël décision bi léegi nag secrétariat exécutif ñoom itam dinañ ko valider waaye bi moom li mu jël comme décision mooy dàq nañ ko te loolu tam secrétaire exécutif bi daf ci d'accord ndax ñoom ñoo njëkk a génne ay communiqué sax di ñaawlu li nga xam ne suñu camarade de parti boobu def na ko. mais loolu mu def euh, ba ngeen dàq ko ñu ngi doon gis ne Moustapha Cissé honorable yàgg na ko def parce que yàgg na saago opposition bi te boobu léegi dàqu leen ko bi la yoon mu ñëw ci euh, biir euh, parti APR ngeen dàq ko loolu xaw na indi xel mu jaxasoo ci askan wi. waaw bu ko doon wax te récidiviste donc ça veut dire que bii c'est pas la première fois waaye nag bu ñu xoolee bii yoon il est allé beaucoup plus loin bii daf ci gën a sori parce que yaakaar naa ne kaddu ñaaw yi mu yëkkati ah man dem c'est la première fois may dégg kaddu yu ñaawee nii di jóge ci gémmiñu responsable donc comme c'est un récidiviste nag dafa jaadu sax ñu teg ko ay daan yoo xam ne su ëllëgee balaa ko defati dina ko xalaataat ñi nga xam ne nag yëkkati na kaddu yooyu teg ko ci seen der ñooñu porté nañ ko plainte ci ci yoon loolu moom dama ci mën a wax. yeneen i leeral la yemu ci indi bokk na ci euh, charte tënk parti ba la ñu fa tëral waaye itam dindi malaanu kiraayam moom Moustapha Cissé Lo ndax àgg nañ fa waa wala déet honorable député. waaw loolu yëpp ay dindi kiiraayu député ak yooyu loolu moom vraiment nekkul suñ prérogative parce que nag règlement intérieur u dafa am nu mu tëddee te yaakaar naa ne balaa ngay dindi kiiraayu député dafay fekk ne procureur moo yónnee na président assemblée wax ko ko bureau bi statué après ñu xool ban décision la ñuy jël donc loolu moom sincèrement yeggaguñu fa xalaataguñu ko li nga xam ne daal moo jëm ci wàllu parti bi mooy suñu parti dañu ne moom nit ku fi nekk da ngay discipliné discipline boobu nga xam ne moom la ñuy ñaan responsable bu ne di ko ñaan militant bu nekk ku jalgati discipline boobu dinañ la teg ay daan te loolu la ñu def ak suñ camarade de parti. kon mu ngi wéy di nekk député. ah waaw mu ngi wéy di nekk député kañ député la kañ. lu muy tekk ci biir parti bi. keneen li nga xam ne suñ camarade de parti def na ko itam dinañ la teg daan yu mel noonu. parce que nag dafa am loo xam ne lii dañ ko doon woote ba ñuy teg suñu parti dañu waxoon ne suñu parti dañ koy teg ci éthique suñu parti dañ koy teg ci valeur dañ koy teg ci ay jikko yu rafet cautionné kenn koo xam ne di nga nekk ci biir parti bi di génne ay kaddu yu ñaaw di ko teg si sa morom surtout nag kaddu yoo xam ne ñaawee na à ce niveau ba kenn bëgg koo dégg kenn bëgg koo nettali. est-ce que aussi jéem ngeen ko jox ko avertissement ak yu ni mel mais jékki-jékki daaxu ko nii rek. waaw mais c'est pas la première fois ñuy jël ay sanctions di ko teg ci kaw militant wala ci kaw responsable parce que gisoon nañu suñu camarade de parti Moustapha Diakhaté bëgguma ko woon sax tudd bi nga xamee ne moom tamit mu ngi def acharnement ci yenn institution di def acharnement ci président ginnaaw parti bi di bëgg a xaaj suñu parti di bëgg a jaxasoo suñu parti dañu am suñu mat génn ko ci biir parti bi donc nag duñu cautionné koy def loolu c'est un récidiviste yow koy yaa ko wax léegi yaa ne yàgg na koo wax assemblée nationale taxaw nañ fa si ñëw mu wax ko lu ko neex donc yàgg na koo def mais cette fois ci nag il est allé trop loin parce que day yaakaar naa ne kaddu yu mujj Sénégal yépp ko ñaawlu. yéen a ngi xibaar yi ci Alfayda FM juróom-ñetti simili moo bottu ci gannaaw juróom-ñeenti waxtu ca pidous xel yi dem ci wàllu njàng ak njàngale junjoon nañ leen ko ñaari classe ya doonoon a mbaax ca sem franco arabe bu lycée Valdiodio Ndiaye ña nga ci suuf tas tasax loole nag jural ndongo yaay gàllankoor seen i ay way jur jóg taxaw di woo kilifa ya ñu jàpp ne dañ leen a seetaan Cheikh Tidiane Diagne zeng ak sàkket ba ci bant lépp a ngi ci suuf ci abri provisoire yi nekk ci lise lycée Valdiodio Ndiaye bu diwaanu Kaolack juróom la ñu woon ñaari fi mu ne nag daanu na ci anam gu doy xajam lool boo fi dugg see sax bu ne la école la fii doo ko gëm kuréel gi takkee parents d'élèves ci barab bi ñu mel nag jàpp ne kilifa yi dañu leen a fàtte dëggantaan Aliou Cissé mooy yor kàddu président bi nekki trésorier bi. moom daal dañoo seetaan li ma gis mooy loolu. fi mu ne tey mbaar yaa ngay daanu. ci capital régional bu toll ay at CEM bi ba mu ba léegi ci abri la nekk loolu daal ñun parents yi li ñu la génne at mu ne franco bi mooy sewe raison bi lu doon franco bi dañ luñ kapot ñaari at yooyu moom yegg na suuf kon nag war na ñuy dimbale ay dige booy na seeni nopp tax na jamono ñu ne gëmatuñu kenn li ñu gën a ñaawlu nag moo di bi nga xamante ne moo wër école bi ñuy tàmbaliwaat njàng mi bi ñu ñëwee ba foofu dañu leen a te bokkoon nañu ci programme bi ñu ne ne nag kilifa yi ci boppam xam nañu bu baax ne école bi dëppoo wut ak di ko gis rawati nag di fa ñëw ànd ak i kilifa. ndax àllarba jaar nañ fa lu war a dugguñ fa man li ma jàpp mooy mbaar yooyu tax dugguñ fa ndax ñi ñu àndal buñ duggee foofu lañ ko gis te loolu moom mënuñ ko nëbbu daa am loo xam ne jarul nëbbu da nga koy weer mu faju CEM franco arabe bi nga xamante ne lu ëpp ci ñi fiy jàngee ay ndongo lañu seeni waajur nag nee na ñu mbaar yi fi defaf néew sax ñoom ñoo ko fi defoon fi mu ne nag lépp daanu na te ñoom jamono ji tembe tembe jaaxle rek la ñu def ñuy sàkku nag ñu defar ko nu mu gën a gaawee Aliou Cissé trésorier bi mooy imaamu Jumaay Sàmm ñi nga xam ne ñooy autorité njàngale mi ñoom ñoo ci waroon a taxaw ñun liñ mën mooy jël suñuy doom jox leen di leen toppatoo loolu lañ mën waaye politique bi école bi war a mel ni mu war a mel ñoom ñi nga xam ne ñoo jiite njàngale mi fii ci commune bi ñoom la war ginnaaw bi ñu dooraatee njàng mi nag ci yenn classe yi jamono a principalu seen bile bi ñu ko jegee nee na du yëy wala mu yàbbi ci mbir mi. jërëjëf Cheikh Tidiane Diagne bu weesoo ay diggéekee naxe mbaay amul lenn la leen kilifa yi defal te mu ne day l'école ba at mu jot mu génne ay résultats yu am solo jaaree nañ fa fësal nag la ñu bëgg ca daaxe ja jaaree fa itam di rafetlu taxawaayu préfet Aliou Cissé di trésorier kuréel ba leen takkee ak Cheikh Tidiane Diagne. daaw la ne bu école di ubbi da ngeen di fekk ay clé da ngeen am cinq classes. waaw ndax am na ñaar yoo xam ne mbiri na mbaba a kooku la ñuy indi fii ak benn classe ak salle de prop ak ay wanag loolu la ñu waxoon bi ñëwee miir kese fa fekk miir ba sax yeggut ba pare miir ba daf ñoo indi problème wanag yi ñu seet de joxoon six ñu fatt yoon wi fa doon jaare parents d'élèves yi daal dañoo bëgg suñuy doom di dugg ci classe ne méngoo naak ñoom ndax résultat yi rek moo lay won bi ay résultat yu baax lay am te daa mel ni ñoom toppatoo ñu franco te ñoom franco bi di dimbale ci examen ak wanok ak salle yi nga xam ne amuñu taxaw ndax garab ga moo nekkoon seen prof garab ga gor nañ ko ñun bañ fa sañceeg léegi tabaxal ñu dara lu miir booba ñu fa te miir ba sax bañ ko defee dañoo am problème ndax wanok yu ñu dem muy see dañ koo baare amatul yoon ñu fexe ba préfet foofu moom danañ fi gërëm préfet ndax moo taaw taxawaayu kilifa ba mu ñëwee gis ne lii jaaduwul ndax moom jàngalekat la woon mu ne mbooloo mu toll ni war am wanok la woo ñii liggéey canal boobu ñu ñoo yeggalee wanok yi wanok yi nag baax na danañ ci jàpp waaye kanam ci xale yu toll noonu personnel bi ñëw ngelaw li ak Kaolack ñun ñoo waroon a defaraat bi ñu defaraatee mbaar bële daal di am problème mu financement ndax ñun parents d'élèves lii ci ëpp amuñu kàttan. est que mënu def ay dégâts sax. xam nga xale yi li la wax rek li ci ëpp ay dongoy daara loolu tiitalu leen ñoom li ñu gëm mooy seen jàng mais moo leen tax a jóg ñu ngi jàng li la njëkkoon a wax rek xool ko ci résultat yi at mu ne bu dee CEM yi ñooy lu dul yàgg dara jaaree ko ci samp fi ay garab jëlee fi mbalit meek salte bi ba mu mel na yeneen dëkk yi tàmbali nañ ko ca gox bi di Daaru Salaam ndangaan Pape Si ma xam-xamam màcc lool jëm ci woowule fànn ma ngay woon ñëpp ngir ñu jàpp ci mi ngi ci micro noir bi ay garab bi mun na am uh, njëriñ bi bëri ci askan bi parce que ñëpp xam nañ ne garab dafa baax ci dundu dundinu doomu adama parce que suñuy wax ne en tant que environnementaliste pour nga respirer de l'air pur maanaam il faut que nga nekk ci benn environnement bu sain daal am verdure lu bëri lu muy def ci wér yaramu doomu aadama ko tamit ci wàllum gis-gis maanaam cadre de vie fa nekk loo xam ne lu rafet la tey ku doon jógee Pont Noiro doon dugg ci rek suñ doon taxe Kaolack la ville la plus sale yaakaar naa ci sortie bii la woon soo fi dugg ci rek mbalit moo lay tertu sooy génn aussi moo lay gàttanu mais tey soo xoolee ni ñu ko defaree nii aménagé ko mu nekk aménagement provisoire nekkul aménagement boo xam ne définitif en comme ça projet bi état mun ko dérouler comme ni mu à mu Moussa Mbaye Diop xelam yëpp mu ngi ci mbir mi ñu ngi siy liggéey kon lii nekk na loo xam ne moomelu askan la moo moomelu waa Kaolack la tey képp ku romb fii rek di nga xam ne am na lu soppeeku ci xar kanamu Kaolack ci côté sécurité doon na gàllankoor lu bari sax askan bi parce que lu nekk ay xajuraam mag lépp fekk nañ leen fi jaan sax mën na fi génn kon tey ñii ñu ko def tey mën naa wax ne askanu nangaan ñoom lañ ko defal te tamit di am na ñoo xam ne tamit dañ fi doon ñëw di sàcc tibi ay guddi côté stade xam nga loolu aussi lu ñu ñaawlu la di ñaan askanu Kaolack yëpp ñu jàppale ci mbir te ñu xam ne mbir mi seen yëfu bopp la ku si nekk soo ko defee comme si yëfu bopp gëm naa ne Kaolack dina changé te bëgg nañ Kaolack changé ci cadre de vie ci espace vert ñoom en tant que ay citoyen gëm seen gox ñoom ñoo doon dugg ay guddi parce que ñun 17 heures éléments yëpp dañuy wàcc mais ñoom ñoo fi nekk ba une ne ñoo fiy bëgg a tuur ay mbalit wala ay xar yu yi ñu koy rafetlu te wax naa ko ki ne moom moo nekk kilifa gi muy à l'occurrence le directeur des espaces verts nee naa ko mu appuyer leen jàppale leen ci ay matériel ki nga xam ne aussi moo nekk chef de service régional bu urbanisme monsieur Ka moom aussi jàpp na ci liggéey bi bu baax a baax. Pape Simaxa loolee nag bu antoo ca Daaru Salaam dangaan ndaw yaa ca jàpp def ko seen ab xëy ab seen ab gontu ba yëf ya antu jël fleur yi euh, jëlee fa wut remplacer ko mbalit mi tax rek ñuy sàkku ci nguur gi ngir mu doole leen ba dara du leen ko yàqal ñu teewlu seen kàddu ci mi noir bi yaay. dara bu doy waar la woon ndax ay ouvrier ñoo fi newoon di liggéey mais instant si sa même ñun ñii sax bëggatuñ salte fii nii ndax ñun keroog dañoo jóg maa mujj ak sama grand bi nekk fii aux jeunes yi nekk si koñ bi ñu génn ñu nettoyé fii nii ba samp fi ay bant def fi zaari terrain fu ñuy entraîné pegg géej yëpp ñu gas ko samp ko ay pono mu doon lieu boo xam ne sorti la sorti dafa rafet sorti warul ñaaw te yaakaar naa état loolu la ci bëgg moom tamit ñun it ñun ñu dëkk si koñ bi tamit loolu lañ bëgg ku ñëw si koñ bi naw ñu fleur yi ñu fi def ñun ñaawluñu ko fleur yi day tax fii rafet ñun waa Ndangane wax dëgg kontaan nañ si wax dëgg ñu gën koo sàmm rek su ko gënee sàmm daal di ko arrosé daal xam naa dañu dimbale bu baax ndax wax dëgg ku duggoon Kaolack wàccoon pont noir loolu daanaka mbali nga doon gis te wax dëgg loolu commencé naa wàññeeku léegi ñun booy tamit wax dëgg ñu ngi siy jóg tamit chaque dañ koy nettoyé waaye ndax gars yi dañ fiy guddi gi léeg-léeg koñ lañ dëkk ñoo jàkkaarloog teena yi chaque jour ñun dañ siy kaar rafetlu nañ ko bu baax daal kontaan nañ si bu baax tamit bëgguñ keneen mu doon ko yàq da su ko yàq ñu ñu xool ne ah fii de léegi rafet na ñu dëkkee fii moom ñu ngi nooy aération yi bu baax géej gi brise bu ñuy jox rek waaw ñu ngi siy sant yàlla bu baax ndax ñun bëggoon nañ nguur jàppale ñu ñu ko ba mu set ñu tegal ñu ay mbalit lay doon ba fii ñu defaral ñu ko ba mu rafet ñu sotti ñu si suuf bu weex suñ ko bàyyee rek am na ñoo xam ne guddi la ñu fekk nit ñi tëdd tuur fi ay mbalit dañuy fexe ñu tappe si suuf banque yi bañ a dugg si biir ngir financer euh, jigéen ñi ñoom waa Ndorong nag euh, jaare nañu fa di xam le ne ñoom ñoo gën a bénéficier wu ci maire ba ci nguurub Mariama Sarr bu ñu sukkandikoo ci Abdoulaye Khat euh, Diouf di responsable APR foofu ca Ndorong ak Cheikh Ababacar Dieng waaw mën nañu wax ne Ndorong bokk na ci quartier yi am lu gërëlo parce que boo seetloo bu baax soo jigee ñaari tali romb lycée technique jubale lycée technique continuer ba Ocas jégewaat station Ndorong

en 2012 nga comparé ko ak élection yi nga xamante jaar na fi 2012 ba par exemple élection ba jël nag bu beneen bi ñëwee APR dina engagé en terme de voix loo xamante ne romb na te may rappelé ne centre bi nga xamante moo nekk Touba Kalo extension bi bu dee quatre élections deux élections la ñu centre bi mais yeneen deux élections APR moo ko kon loolu rek war na mën a tax suñu xel dal ci ne beneen élection bi ñu demaat allah lañ fi nag euh, jox nañu jigéen ñi ay saabu gel ak masque ngir mbas mi jegaan wan li ma ko doon joxe na jaare na fa tontu ñay wax ne madame le maire Mariama Sarr day bàkkoo liggéey yu fi président de la république def mi ngi ci micro Cheikh Ababacar Dieng di wax rek ne am na nag ñu naan dañuy jël li nga xam ne mooy réalisation président de la république maire di ko mbubboo waa ma ne ki nga xam ne moo dem laaj taxaw xeex ba ñu indi projet yooyu ci dëkk bii def ko defe naa ne ko ne la muy indi si seen poos lay dugg ñoo mun a bàkkoo lu ñëw Kaolack Massa ki nga xam ne daf fi indi projet yoo xam ne lépp ci njariñu Kaolack la muy ay tali di ay lam ban nag mérite boobu kenn mënu cee génne Mariama Sarr ndax bu ta doon di nelaw nag du ñëw fii bon nag ay naan dañuy jaawale bilan président ak bilan mairie loolu ay waxu kiñaan la wax ju yàqu la bon nag yéen waa Ndorong defe naa ne loolu gis ngeen ci seen bopp bu baax lii nga xamante ne nag moom lañ leen indil loolu defe naa ne Ami wax na ko yàgg na tey ñi ngi ci ay million bon nag ni ngeen ko war a def du lu ñuy séddoo dangeen koy tëye di ko liggéeye di ko leblente seen biir muy jur ndax ñi ko njëkkoon a jël tey ñi ngi ci ay millions di leen wax na nag lii doorte la te su ngeen ko liggéeyee ba mu jaar fa mu war a jaar incha allah da ngeen gisaan Mariama Sarr ndax ñi nga xamante ne liggéey nañ ci ba mu jur ñoo ñëpp tey dooleel na leen jàppalewaat na leen bon nag ñi ngi leen di sant lii ñu indaale nag indaale nañu saabu ak gel ak ay masque ndax ku ne xamante ne ne jamono ji léegi lii sax kenn waaye nag comme lii yàgg na fi te xamuñu kañ lay jëm li ñu ubbee lépp dañuy ñaan rek di leen ñaax buñ ne leen na ngeen dund ak feebar bi du ngeen bàyyeeku rek ne feebar bi jeex na déedéet mooy lan mooy continuer di dox seen soxla waaye nag di respecte les mesures barrières di raxasu di takk ay masque su ngeen ñëwee raxasu ba set di utiliser gel yi loolu moo tax nag tey lii ñuy ñëw madame la maire joxaale ñu ay saabu ay gel ak ay masque pour ñu indi leen ko wan leen ne nag na ngeen lu xeex feebar bi bu baax ndax feebar bi kat mi ngi ci dëkk bi te bon nag nit ñi fi mu nekk nii ku ci nekk yaa mën a aar sa bopp comme moom day aar boppam bëgg a aar ñëpp nag mi ngi leen di ñaan ngeen respecté li ñu leen wax. jegaan wan lii leneen lu nekk ci dëkk bi mooy coowal suuf ma ngay lëmbee réew mi dékkiwaat na ca diwaanu Ndar Géej ca commune Diamant dox ci diggante askan wa ak park ba fa nekk tax rek askan wa di woo nguur gi ngir mu àtte leen laata mbir ma di gën a ñaaw baax a jop coowal suuf nekk coow yu ñu gën a ràññee fii ci réewum Sénégal ci diwaanu nemmeeku nañu ko fi tax léeg saa mu andi fàttu ko bakkan wala sax demante ci yoon buñ ne poñ bu nu mel ci diwaanu waalo gi sa xel jëm ci mbaan ak dodel wala sax fannaay jamono jile nag coow laa ngi jolle ci dëkk bi di jëma askan wi ne jafe-jafe yu tar moom la ñuy jànkuwanteel ngir seen suuf suñu nar a foo xar ñi seen digganteeg waa parc bi loolu la ñuy déplorer parce que booy àtte ñaar ñuy xeex ñaar jëm ngay déglu te ñun xeexuñu ñu li ñu moom looloo tax commune bu ne lenn képp la soxla ci état bu Sénégal mooy mu àtte leen malheureusement ñun bëgguñu xeex bëgguñu xuloo lu ñu bëgg mooy njiitu réew mi àtte ak waa parc bi bu fekkee parc bi moo am dëgg ñu xam bu fekkee ñun ñoo am dëgg ñu xam loolu nag nun koy xamee mooy ñu jël li nga xam ne mooy aménagement du territoire ñu ñëw àtte comme dafa am litige yenn xeltukat yi nekk fële ci diwaanu Ndar Géej di sàkku état bi jël ci ay matukaayam tey municipaux yi a daal je pense que état bi war na ci gën a dugalaat loxoom bañ aussi moom tam di séddale. Pape Latir Fall jiite forum civil xam le ne lu nu mel état bi képp moo ci war a jël ay ndogal yu njàmbaare dëgg boole ci dal di auditer suuf si lépp. ñun loolu mooy suñu war ko falu ñun ki ñu fal mooy autorité suprême monsieur le président de la république moo war a nag monter au créneau pour moo tax ñu xelal ko suggéré ko dafa waroon arrêté affectation yëpp cest bu fi kenn joxeti fu mu toll léegi nag comme ñu ngi dans le population di ñëw ñu encadré ko li am tewer askan wi nekk file ci diwaanu Ndar Géej néew na nga toog ñaari semaine déggoo jafe-jafe suuf ci diggante askan wi moo xam ci seen biir la wala sax ñoom ak autorité yi sàkku saafara nag ca ba muy teel mooy li gën laataa làmbaaya ñaaw ne xoddeeku laataa ngàllakale Saint-Louis Alfayda FM Bara Diop. yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM ñu wéyandi ci xabaar yi ba ñu déggee ne daañu ubbiwaat frontières yi ñoom agence de voyage yëngu ci wàllu dem ak dikk noyuwaat nañu bu baax a baax ba tàmbaliwaat seen ay yëngu-yëngu gannaaw ba mu leen yàqalee lu bëree bëri ñaari weer ci gannaaw Cheikh Tidiane Sarr. ak doraat vol yi nga xam ne ñooy daw ci biir réew mi ubbiwaat tamit suñu frontière aérienne yi yenn nag ci agence de voyage yi nga xam ne ñooy faral di jaay bee yi nag ñoom ñu ne jamono ji mën nañu nokkiwaat bu baax a baax bokk na ci Daaru Salaam voyage di agence bu njëkk fii ci diwaanu Kaolack ñu ne nag jamono ji client yaa ngi commencé waat di ñëw di woote ngir def ay réservation Habib Dramé agent comptoir la ci baxa bu ñu mel. depuis daal ñu commencé di annoncé ouverture bi ñu si lañ ñëwoon anticipé waale commencé ubbi waale clients yi tamit dañu woo un peu partout ñu commencé di recevoir ak yenn appels ak yenn euh, demandes yi moo tax ñu ñëwaat daal ubbi commencé daal reprendre ndànk-ndànk activité yi. bi ñu annoncé ouverture ba léegi sentir a un peu partout ñun tam ñu ngi ñëwal seen bopp fii di xool di laaj yenn renseignement yi nu ñu defaat ba amaat bien. Covid boobu nag ak laal yi nga xam ne laal na ko secteur yu bëri bokk na ci secteur tourisme bi ak képp koo xam ne yaa ngi ciy yëngatu. waaw ñun mun nañoo wax ne daf ñoo affecté directement suñu activité bi yëpp yëpp dafa taxawoon parce que toog nañ deux mois yoo xamante ne dañoo tëjoon fermé carrément xëyatuñu woon. bu ñu sukkandikoo ci yenn ci ay agence de nag pexe bi nag moo doon di woo seeni clients yi par téléphone wala sax ñu leen di envoyé ay messages. ngir gën a maintenir li ñuy wax clientèle bi. jaajëf Cheikh Tidiane Sarr Daaru Salaam voyage boobee sax nag la ñuy duggee oto dem ca diwaanu Touba Mbacké màggalu ko Daaru Salaam ñoo ngi ci waajtaayu édition mu nar a doon nag fukki fan ak benn ci wér ak juillet bi ñu ne waaye nag ni ko euh, xalif général yi Mouride bëggee képp noonu la koy euh, defee ndax xeexu mbas mi di coronavirus yaatal a Mamadou Moustapha Mbaye. gannaaw ba nga xamee ni màggalu ko Kazu Rajab waaye it màggalu Serigne Souhaïbou ak bopp Serigne Abdou xam ne ñu ngi koy amal ci Mbàkke Xewar di ci fàttaliku Serigne Mamo Jaara Mbàkke ñi nga xam ne ñoo nekk Daaru Salaam ñoom seenub màggal daal nee na nu noonu yi rek lañ koy defee ñi nga xam ne moom la ko Serigne Muntaxa Mbàkke bëggee gannaaw ba nga xamee ne feebar bii ni woowee coronavirus mi ngi ci dëkk bii loole nag Serigne Cheikh Anta Mbàkke moo ko fësal gannaaw ba nga xamee ni dem na seeti Serigne Muntaxa Mbàkke Basiiru ci ndigalu xalifu Daaru Salaam Serigne Cheikh di wax ni kon xalif bi ci boppam nee na képp ku xam ne da bëgg màggal si da nga ba li nga xam ne mooy geste barrière yi respecté ko waaye kenn ku ne it ñu ngi lay sax nga toog sa kër ndaxte loolee mooy ndigal li waaye ñi nga xam ne mu ne suñu leen bañ bàyyi nu ñëw fii daal ci dëkk bu sell bi nanu fexe ba dajaloo bi daal mu bañ a am ci dëkk bi nga xam ne moo mooy Daaru Salaam ñuy fàttali ni kon màggal gi ñu ngi koy amal gannaaw ba nga xamee ne Serigne tubaab bi mu jógee ci loolee yi duppe nattu bi ci tukkib géej gi ñëw na Daaru Salaam Serigne Cheikh Anta daal di koy ganale édition 2020 bi fukki fan benn ci juillet ci atum 2020 lay am ren Darou Salaam mbay FM. Mamadou Moustapha Mbaye Darou Salaam xeexu ambas moomee di coronavirus sax nag euh, donte kilifa ya ngànk wàllum paj mi ña ngay sàkku ci nit ñi ngir képp ku amee feebar bi ñu bañ di la daw di la joxoñ wala bokk di la boddi terewul tey ji la waalo gën a ay ba ñu bëri di ca loru jàngat léegi soxna Ndeye Fatou Cissé. yéete géeg yar gi daa des kon ci feebar bile di coronavirus du rek sax Sénégal bari na ay dëkk yoo xam ne ñi mu fa dal bu ñu wéree sax ña leen xamal la dañuy wéy di leen joxoñ seeni mbokk duñu ca mucc donte ni fii ci mim réew kilifa yi ko ci jiitu di président de la république bari na lu ñu koy digg muy insister ci ay waxam jëmale ci ne coronavirus samba covid 19 du feebaru gàcce coronavirus bot digga mu àndal di stigmatisation gi daa wàlli wan képp ndax ca ndoxteel la lu ne nag dégg nañu ko ci rawatina anam gi ñu doon wéree ñi ko am nit yanu doon jëflanteel laataa ñuy xam seenu pa wax jala ca doon gën a fës di moo bile di quarantaine way takk der yañu ca boole woon tax sax ba am na ñu mu jaraloon ay daw tey nag waa kër docteur di fësal seenu pa njàqare kon ci ne bari na ñuy nañuy egsi hôpital fekk ne dañoo sonn te làqatu ngir kenn bañ leen xamal dong moo leen ko yóbbee moo ne dey ak ñëw ca teel am na lu bari lu mu mënoon a def ca paj ma population bi tey ci tey nag lan moo ci wàllam ba lim néew ba ñàkk gannaaw digle kër docteur ci mbirum coronavirus ba feebar bile bañ a doon loo xam ni mooy raw foofu mbirum accident de la circulation yi nga xam ni bari nañu cay faatu ndax blessure yenu ca jëlee covid 19 ña cay faatu bari na tamit ñoo xam ne dañuy yore yeneen ya tawat ñu ne loolee mooy aggraver seenub cas ba réew mi mujjee compter saa su ne ay bakkan yu root ci jamonoy mbas milee amagul garab. soxna ndey Fatou Cissé boo dikkante googee sax nak dem na ba ci diggante xeet ak xeet ca réewum Gambie am ay kuréel yu taxaw temm ngir dàkkal ko jaaxee ko ci ay bataaxal ya ñu jébbal njiitu réew ma di Adama Barrow suñu ndaw di Mamadou Lamine Sène affaire yi mbot di xeet gis ne nag am na ñu ci bëri yoo xam ne ñu ngi jël ay audio di ko wasaare ci buntu jokkaloo yi xarañ yi di dal ay xeet di leen def di fi joo xam ne naka suru noonu li ma waral fan yi ñu génn am na kilifa yi nga xam ne nii àdduna ci google mbir yee ci yàbbi pour gis ne ñi nga xam ne ñoo di jël seen ab kàddu di ko euh, yee di yàbbi euh, di dal ab xeet leen def di fi joo xam ne naka suru noonu lal leen ko dakkal ci lam gën a gaawee tey ji sax am na ab kuréel goo xam ne dañ dee xeex affaire yi bot xeet fii ci réew réewu Gambie ñoom nag ñoo taxaw temm pour gis ne waxtaan na kii di président Adama Barrow njiitu di réewu Gambie pour gis ne moom it na jeexe ay jéego yoo xam dina ko ci def pour mën a dal ñi nga xam ne nii ñu ngi jóg di bontante xeet fii ci mim réew kuréel gi tamit ba tey seen bataaxal bi nga xam ne moom la ngay bind jibal ko njiitu réewu Gambie muy Adama Barrow pour gis ne na def góorgóorlu balaay mbir mi di ëpp loxo fii nag bu demee bu ëpp loxo mun naa e jural musiba mbaa bokk ma fii ci mim réew wala mun naa jural naka nga yëndoo mbaa jàmm nga fanaanoo ñu ne balaa loolu di ci am nañ ko saafara ca lam gën a gaawee ndaxte boo dexante xeet nekk na loo xam ne mun naa jural li di mer xëñ na ngiru ak ngaayoo dina am fii ci mim réew féewaloo bu fi amee rek da nga gis ne loolu dina nekk jafe-jafe fii ci réewu Gambie ku doon jokkoo géen fii ci euh, Gambie mooy Mo Lamine seen pour rajo Alfayda FM yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM duwaan ba ca Ziguinchor ñoom ña ngay euh, lal ay pexe gën a dëgëral seen taxawaay ci xeexu garab yu bon yi waaye itam lii ji drogue ba nga xam ne ña koy euh, def pexe bu ñu mënti la rek ñu xam ko ba mën leen teg loxo ña nga woon rek ca dëkk bi di impact ca poste ba fa nekk Malang jeju mu ngi ci micro Mohamed Sagna. ci weer janvier bu ñuy célébrer journée international douane waxoon naa ni combat bi combat lutte contre drogue bi ak foo médicaments yi mooy garab yu bon yi nit ñi di dugal ci réew mi na ci loo xam ne douane gi doon développé ay stratégie pour loolu jeex yemul ci douane euh, générale bi ñun au sud ñu nekk fii Casamance mooy région naturelle Casamance tamit dañ ne woon loolu mënul continuer parce que chiffre yi ñu wone woon daaw wone na ni loolu lu fi am la moo tax ñoo ngi continuer di jàpp ay marchandise ñun ak yeneen force de défense ak sécurité muy armée muy gendarmerie muy police muy eaux et forêt ak ñeneen ñeneen mais malgré tout sax ñoo ngi gis ni mbir baa ngi fi moo tax ñoo ngi développé koy def dañuy am ay moyens yoo xam ne daf leen di permettre ñu def loo xam ne mën na am xel du xalaat ñun tamit dañuy développer ay stratégies yooyu noonu pour lépp lu ñu mën a imaginer ñoom ñu mun ko xam pour jàpp loo xam ne ñoo ngi koy dugal ci réew mi di yàq économie réew mi te mais tamit di rey population yi parce que loo xam ne boo ko joxee nit mënu ko faj mais yow sa intérêt rek nga ci topp baaxul moo tax ci combat boobu noonu semaine yële waa Jalajan poste bu nekk côté Kolda jàppoon nañu garab yu bëri tamit dem ba waa poste Mpaak foofu la ñu nekk nii ñu jàpp tamit ay garab yu bëri donc ñoo nañ fii pour euh, transmettre euh, félicitations ministre finance ak euh, budget directeur général des douanes ak directeur des opérations opération douanière agent yi di leen wax ni nañ gën a góorgóorlu ñoom ak euh, ñeneen ñoo xam ne ñoo ngi yëngatu ci mbir mi mooy euh, policier gendarme militaire eaux et forêt et cetera et cetera pour ñu bare yoon bi xabaar yi bitim réew xabaaru bitim réew soxna Ngoné Ndiaye Kane moo ñu koy jukkil ana fan lañ koy dooree nday Xadi gannaaw ba ma la nuyoo ba noppi nag tey jukkim xabaar yi bitim réew yi dañu koy dooree ca Californie foofee nag lu toll ci euh, junni ak ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom ñetti ci ay doomi aadama nekk ay prisonnier ñoom nag la ñu daal di testé rek ñu daal di amee mbas bi di euh, Covid 19 lu ni mel nag gouverneur diwaan ba moo ko daal di xamal gannaaw ba mu doon amal ab jano euh, yi di wax ne nag département bi ñu dénk wàllum administration pénitentiaire pénitentiaire ak it euh, wàllum réinsertion euh, di CDCR ñoom nag ñoo daal di euh, wax ne nag lim boobee lim bu takku la bu ko gam-gam lekk la nga xamee ne moo nekk ca kaso ya nga xamee ne nag mu nga toll ci téeméer ak ñaar fukki ak junni ci ay doomi aadama. xabaar yi bitim réew. xabaar yi bitim yi ba tey ñu daal di wéyandi daal di dem fa nga xamante ne rek moo di ca réewum Chine foofee nag mbir mu méttee métti mu fa daal di am di ab a ndax nag ab bus daal moo daw saaraan ba dugg ci ab déeg nekk bu xóot lool bis boobee nag ma nga yeboon lu toll ci ñax fukk ak benn ci ay doomi aadama yoo xamee ne nag ay gone lañ yoo xamee ne rek ñu ngi toll woon ci def baccalauréat atam ren jiile waaye nag ñoom ñëpp ñoo mujj ñàkk seen ak bakkan lim ba toll ci ñaar fukk ak benn l'accident boobee nag mi ngi xewee ci diggante abaj Saloum ak sow réew ma ci ab dëkk boo xamee ne ma ngay wuyo ci Anchou nekkee ci province bu Guissou. xabaar yi. bitim réew ñu dem ca euh, Malawi foofee nag daal di àddu jëmee ci euh, wàllum euh, politique gannaaw ba ñu ko tabbee nak ci bopp réew ma moom Lazarus Chakwera ni ki nag ay bés yi la weesu rek amal na nag la nga xamee ne moom la ñu tuddee daal cérémonie d'investiture maanaam daal ñu daal di koy dëj nag ca gàngu naay ga ndaje moomee nag ñu ngi ko amale woon ci anam bu yemma mbaay maanaam daal amutoon ay xumbaay ki mbumbaay waaye nag moom jiitu réew ma yëkkati na bataaxal boo xam ne la ci gën a am solo mooy na rek woon a réew ma yëpp nag nag ngir ñu joxante bopp bokk ndey ak baay di xàccandoo di dooxandoo ngir nag ñu mën a yëkkati réew ma daal di ko yóbbu rek fa nga xamee ne fa la bëgg mu àgg ci wàllum suqaliku. xabaar yi ñu jeexal xabaar yi bitim yi ak mbootaayu xeet yi di uh, ONU ONU nag ni ki démb rek daal dinay uh, fësal ab bataaxal uh, di ca wax ne nag léegi réewum Chine daal dinay dugg ci langue gi maanaam dal daal dinay siifee traité bi soxal wàllum jënd ak ak njaayum ngànnaay traité boobu boobee nga xamee ne nag ña nga ko dàkkantalee TCA nga xam ne nag la mu lënkale ci ay xew ma nga tollu ci téeméer ak juróom-ñaar te it ànd ak di wax ne déggoo gu mel nag ñi ngi ko adopté woon ci atum 2013 jaaree ko woon ci buntub mbootaayu xeet yi. xabaar yi bitim réew. Ndeye Khady li moo gënoon a fës tey jilee ci jukkim xabaar yi biti réew yi mbokk yi jàngin jëfati. tàggat yaram. xabaaru tàggat yaram Serigne Moussa Kane maa ngi lay nuyu. Ndeye Khady maa ngi lay fay te nuyu mbokki auditeurs yi ñu sóobu ci xibaaru tàggat yaram yi doore ko ak ancien sélectionneur bu éléphant yi nag bu Côte d'Ivoire di François Zawi te jamono ji mu yore ma centre Afrique moom nag François Zawi nee na nag jógewel fi nga xamante ni moom mooy ci bangu centre Afrique bi dafay desene di nekk entraîneur bu centre Afrique ci juróom fukki atam ak juróom-ñaar. ligue pro sénégalaise conseil administration bu ligue sénégalaise de football professionnel nag tey jii nag la ñu war a amal ak réunion nga jëm ci ligue 1 ak ligue 2 li ñu war a waxtaanee nag ak comité exécutif bu fédération sénégalaise bu football moom mooy championnat ligue 1 ak ligue bi nga xamante ni mënees na ko dooraat balaa ñaari fan ci weeru novembre bi ñu jàppoon gi ñu dëgmal CAF CHAN 2022 nag toxal nañu ko ginnaaw bi nga xamante ni mbas mi di ba léegi bu ñu sukkandikoo ci secrétaire général bu fédération algérienne di Mohamed Saad CAF nag dafa bëgg ñu amal compétition bi ni mel ci weeru juin ak sulet waaye ba léegi nag ci kàddu Mohamed Sadd nee na décision bi ñuy jël nag des na ko aare ni ñu fàttali leen nag CHAN bi nag dañu koy amal ñaari at yu nekk ci ndoxteelu at mi édition 2020 bi nag xam ngeen ni ñu ngi ko jàppoon ci weeru avril gi ñu weesu foofa ca Cameroun ñu mujj ko toxal ba janvier février ci atum 2021 football la ci dend ko Europe fareeru bëccëg bekk ñeent Premier League anglaise Crystal Palace dafa ñàkk ci kanamu Chelsea ñetti bal Norwich ñaari bal ci benn Arsenal ak Leicester ku nekk benn bal nga dugal sa tey si ngoon nag Man City moo laaleeg Newcastle bu juróom waxtu jotee West Ham di laaleeg Burnley ci boobule waxtu Sheffield United di laaleeg Wolverhampton Brighton di laaleeg Liverpool bu juróom-ñaari waxtu jotee ba teg ñeent fukki simili ak juróom faneeru bëccëg beek juróom Liga espagnole Valence dafa am ndam ci kanamu Valladolid te ñaari bal ci bal ci ngoon ak Villarreal ci boobu lay waxtu FC Barcelone di laale ak Espagnol Barcelone loolu nag derby catalan la faneeru bëccëg bekk benn calcio italien AS Milan daal di tëcc tëcc Juventus ñeenti bal ci ñaar Lecce ñàkk ci kanamu Lazio benn bal ci ñaar tey ci ngoon nag Girona mooy laale ak Naples Fiorentina di laale ak Cagliari bu juróomi waxtu jotee ba teg faneeru simili Atlanta Bergame di laale ak Sampdoria ci boobu lay waxtu Bologne di laale jàmm ma ngook ndey xat yi gannaaw ba ñu la ñaanalee kenn daay yu jàmm li moo gënoon a fës ci xibaaru tàggat yaram jaa ngeen jëf. na la kendalu jàmm Serigne mu Kane te ji nag di àllarba juróom-ñetti fan ci weer ak bi ñu nekk nii li ñuy waxtaanee bokk na ci feebar coronavirus bi nga xam ne ñu bari euh, képp ku ñu ne rek da nga ko amee nit ñi di la daw di la joxoñ wala bokk di la boddi ba kenn nangootu la dem hôpital wala bokk laataa nga dem hôpital fekk nga loru ba noppi wala bokk sonn lool ba euh, ñu lay soog euh, yóbbu ndax jotul jamono ji nit ñi jàppalante si seen biir ak ban taxawaay itam lañ ci war a am ñun askan wi dimbalante ci 88 628 97 97 88 628 18 76 33 942 13 47. li ci yéene kaay yi kaay yi. L'Obs, Le Soleil, Sud Quotidien, Walf.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 ahlan bikum li jeexaloon nguurug Ablaay wadd tey ci la makki Sall mekk li daanee PDS tey ci la APR mekk bukki ba màttoon Ablaay Wàdd ma ngay waaja màtt njiit réew mi Macky Sall yaaw seetal l'observateur moo xëy amal jàngat ci tolluwaayu APR tey feebar ba leen dal moo daloon PDS ay responsable kilifa yu nekk APR fa xuloo fa xeex fa ñuy këttala tuumalante ay saagay ndey fa ñoo ñaaw làmmeñ fa ñoo ñàkk teggiin tuumalante séddool xalalu askan wi doy na ci misaal Moustapha Cissé Lo li mu wax barki démboo Njaay sëriñ Lahad Mbàkke ndulo njiital mouvement ànd falaat Macky ne xaw ma kan waaye Cissé Lo moom fay naar bi xoromam ndax li ko Macky defal waroon naa fexe ba lay naqari Macky du bàyyeekoo ci moom ba tey ci source ay yéene kaay ma ngay leeral ne ñi nga xamante ne ñoo enregistré waxu Moustapha Cissé Lo bi ci ojo yi tasaare ko ñooñu tamit wax dëgg yàlla yoon fa leen a war a jàpp teg leen ay daan ndax ku xam ne Cissé moom fa woote téléphone kam woo téléphone nag moo ko enregistré ba pare jàllale ko turbine yéen a kaay ne Macky kay fi mu toll ñi ko wër moom la war a xoolaat ña gën a bëri si ñoom seen bopp rek lañ nekk gëmuñ Macky faalewuñ ko sax toppatowuñ ko ay milliards rek la ñuy wër ci xanam gu jaarut yoon Baara Ndiaye na leen li ngeen waxee dëgg moo tax man nag may jóg di xeex ñu nga xam ne tey fa ñoo nekk ci pegg Macky di ay responsable naan Macky la ñu jàppale Macky leen gëm te waxuñu dëgg seen bopp rek lañ nekk lu fi jëlee Macky bañ wutu ko place am bi ci la ñu nekk waxoon naa ko fi Aminata Touré mimi ñu naan yooyu yaay fa may porter plainte ba léegi maa leen di wax ne gisuma benn plainte ci les écoles yéen a kaay nee na du ma dëñ mukk di leen xeex ñoom ñooñu yéen a kaay bi na ko siiseloo moom football nañ ko kajji dàq ca biti vox populi dëggal ko na ko siiseloo kaay ba moytul xay dana ko xenu de ah ay mbiram fi nii fay gën di tàq suuf aa yaw seet tal APR kajji nañ ko groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar football ko dàq ca biti ka ñu war a génne ca biti kaso ga nag mooy Assane Diouf ak Abdou Karim xurum xaax a yow seetal su fekkente ne ay saaga moo tax ñu tëj Assane Diouf kële ñaawlu doxalinu nguur gi léegi Cissé Lo moom li mu def moo gën a garaaw téeméeri junne yoon a ñaar fukk la ñaar ñee def ndax bu dee saaga la Cissé Lo lim saaga moo gën a ñaaw gën a xesaw gën a bon gën a ñàkk teggiin fuuf te mu ngi nii ba léegi kenn tëjut kaso réew mi yéen a kaay la loolu ko xolaat la mu xool ba jox ko moom Aminata Touré mooy statut Faidherbe ba nekk Ndar fañ koo war a daane jëlee ko fa defar fa statut ndate yàlla mbooj reenu wàllo ba kàddoom yaa ngi ci laas yi ne kaay lépp ngir ñaawlu tubaab yi li ñu doon def suñu maam yi su du quotidien mel ni ku naan ko ba léegi nag tubaab yi ñi ngi ñuy moom ñi ngi ñuy toroxal ak mbugal ah réewu Europe fa ñoo wax na Sénégal benn avion du naaw dem ci seen réew ya Sénégal tamit na ñoom it fa ñuy fayu ba démb amal nañ waxtaan dimanche tamit danañ amal beneen daje nay leer lu leer ba yegg ca nañ ja mooy ne diggante Akilee ak Senelec mënuñoo ñàkk dem ci yoon xeex bu métti ci wàllu yoon munu cee ñàkk a ah, yaaw seetal kilifay Senelec yi ñoom liñ bëgg mooy contrat bi ñu négocier waat ko wala sax bu gàtt bi mooy ñu neenal ko mu jeex te loolu nag du arrangé waa Akile l'observateur ne Babacar Ngom Sedima nag waa Akile yi la jàppal tànk ñoom la farag de waaye club investisseur Sénégal yam jiite ne nañ ko xalaa ma ndir bàjjoo xalaa xalaa doo fi jaar ñoo bañ jàppale wuñ benn Akile yow ma war nañoo xool say mbir Babacar Ngom le quotidien yéen a kaay na leen li ngeen waxee dëgg Babacar Ngom ay mbir ma ngi bëgg a jéggi ne rek moom moom réewum Sénégal ko neex def a ah, yaaw seetal coowal Akilee dugg na ci ñu ne déetawaay ñu ngi koy tudd ci mbir yu garaaw nangu suufu ay baykat jaay len doole ndax xalal ju ko yàlla abal te moom fa war a fàttaliku démbam xamutoon dara miskin la woon tey mi ngi ci juróom benn fukki atam ak ñettam daan na dund dund gu neex waaye fi mu toll nii nag yëfi naqari na ci moom de ndax am Babacar Ngom andil Babacar Ngom source ay a ngi koy tuddaat moom Babacar Ngom ci coowal suufati biir Dakar place boo xam ne Abi Ndour rakk su Ndour ne moo ko moom Babacar Ngom jaay ko doole ci ndimbalu terrain ba def fa KFC yéen a kaay bi ne ma wax leen terrain boobu daaw dafay bi fi nekkoon jëwriñ ji dénk wàllu tàggat yaram vaava moo ko moomoon fa koo jënd boobaak léegi mat na ñeen fukki at mu dëkk fa ñaar fukki at ak juróom mu jullee ko waa Shell fukki at ak juróom foofa nag tey la waa Sedima yi dem samp seen KFC may leer laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne jëwriñ ji ñu alam bi Abdou Karim juróom benn kéwél yéen jëlee woon réserve moo wa ginnaaw buñ dammee ay damm-damm yu métti fa koo weddi woon nag moom Abdou Karim Sall dara ne amut waaye tey libération ak source a nañ ko bàyyi sa waxu caaxaan caaxaan yi yaa ko moom ngay wax lan ki ñu gëj a dégg mu wax Idrissa Seck tekk tekkaaral gu métti ak lii xew ci Sénégal yépp lii yéene kaay ne waaye loolu jaaxalu leen li jaaxal laas yéene kaay mooy geraw bi liggéeykat yi nekk ci wàllu atte justice tribunal yi nekkee yëf yi ëpp na de askan waa gi loru ba tax ñuy xeex ak ak yelleefu doomu aadama na njiit réew Macky Sall nguur gi na waxtaan ak ñoom ndax léegi ku soxla këy tribunal doo ko am ñañu war a atte ña ca gën a bëri atte wuñ leen loolu la ñaaw ndakaaru nag mooy ñàkkum ndox mu métti seen oo nag ko kaay ñu la mu ñu xamal moom enquête yéen a kaay mooy agresseurs yi fi mu toon ni fanoo rakkaaju ginnaaw buñ jeexalee couvre-feu bi ñoom fa ñoo jóg ndakaaru moom Bourguiba baabaak rond-point Chéddo liberté juróom benn fa la agresseurs yi gën a bëre laneen lu bëri Sénégal ñu am corona te ñu faj leen ba ñu wér critique yéen a kaay ñu ko xamal juróomi junne gàcce ngaalaama docteur yi les échos yéen a kaay na ko waaye Air Sénégal avion seen liggéeykat ya am na ñu fa am corona de ñi am corona nag Sénégal ñaari jàngoro lañ xam bu njëkk bi mooy corona bi ba ca topp mooy sénégalais yi askan wi fañ leen di beddi fañ fañ leen di daw fañ leen di wax wax ju ñaaw la solo yéen a kaay ñi ko xamal jigéen ñi seen mbir sàjji wut nag mooy ñi nga xam ne fa ñoo amoon far mujj leen a bàyyi dem sëy ak keneen l'observateur ne la ca gën a bëri sa ñoom nag fa ñuy dem ba mu yàgg ndeke seen bëggeel jeexut ca seen far wa fa ñuy mujj di làqatu di dem seeti ji seen far ya yéen a kaay bi mel ni ku naan leen ku ci yëf yi toll noonu ñaanal sa baat nga dem sëy waat ak sa far wa fekkee moom sax ñàkk na fayda ba di ko nangu li gën mooy jeexal diggante ba te ngeen jàpp ci yàlla ak seen jëkkër yi ñeneen ñu amoon jëkkër di ay soxna seen wala boog ñu fasaleen la solo yéen a